fajar lañuy yeewoo ngir dem ca tool ya roose fii ci jogoom bayum lijum bari fi doole lool baykat yu fi yeewoo seeni ñàkk la ñuy dundee loolee tax ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu wàññi leen engrais ab jiw ji ngay bay ba ñoral pour nga jaay ko tax da lay xaw a def indil problème fii ci jogo moom boo xoolee tool yi fii yu bëri ñu ngi nii tëdd looloo ko waral bagage bi tey lu demee ne ay suppame da koy ñoral doo ko mën a jaay di xam nga ni nga roose supp amee ñoral mu dem supp amee heure bii dong la mën a la lay lay aju mais bu dul période boobu day tool diggante boo xam ne ay saako 3000 sax dafay am. dañ ciy néew doole daal ndax da jënd engrais jënd jiw bi yaa a gën a xam ca affaire yi dafa seer gasoil. saako engrais bi nga daan jëndee 12000 11000 léegi yaa ngi koy jënd ay mille 35000 produit yi nga xam ni 4000 la doon jar. léegi huit mille neuf mille lay jaar kooku daanaka mbay mi fi ne dafa métti te jaay bi yombul. ñuy bay suñu ko bayee ba pare suñu ko bayee ba pare mën naa leen dañ koy bay ba pare tuur ko c'est que amuñu moyen pour war ko mën a jaay amuñu fenn fu ñu ko mën a denc ba jaay ko dañuy indi beneen produit bu jógee bitim réew concurrence suñu bas ñu bàyyi suñu bas dañ koy tuur ci ginnaaw weer ci ginnaaw mars bi ñu mars ñoo ngi jaay saako su ko mi 2000 francs saako karoot 2000 francs nga jënd 200 litres gasoil cent dix mille jënd saako engrais trente cinq mille kooku jafe-jafe la ci baykat bi. mbay mi benn affaire moo ci ne da ngay am pression pour bay mais li ngay bay kuñ ko bay ba pare mais daana ko pour nga récolter ko jaay ko normal du yomb parce que loo fi bay dañuy importer muy ñëw ci yow. pour nga jaay ko day jafe te fi mu ne nii daanaka araw produit yëpp dafa seer saaku engrais bi nga daan jëndee douze mille onze mille léegi yaa ngi koy jënd ay trente sept mille trente cinq mille produit yi nga xam ni quatre mille la doon jar léegi huit mille neuf mille lay jar kooku daanaka mbay mi fi ne dafa métti te jaay bi yombul te fi mu ne daanaka li nga xam ni nguur gi war na mu ko jàppale bari na ci mbay mi mais dafa des des na lool ndax fi ne nii yaa ngi nii carottes yi des na supame yi des na te yi ñu ngi importé te ñun wax dëgg yàlla ñun Europe mënuñu ko importé bagage mu di fa dem kon ñun li ñuy bay war nanoo mën a bàyyi ñun ko bayee di ko mën a jaay di ci gis suñu bopp waaye wax dëgg yàlla mbay bi instant yi ñu ngi ci am jaaxle lool te tund toolu jogo moom ku ko xamulu dégg nga toolu koo xamul it dégg ko làq na lool mais siiw na lool it xam naa ni parce que ay kilifa fi dëkk ay boroomi doole boroomi xam-xam ñu nit ñëpp ñu ci wàllu mbay la ñuy liggéey kon ku mën a ñëw rek wax dëgg yàlla nga jàppal leen ci mbay mi am na ci solo lool ndax mbay moom gaa yi sonn nañ ci te fi mu ne nii gis nga lii ñuy roose li mu laaj bari na fi ne nii mat na mais yëpp fi ne gis nga soble tubaab prix bi muy jar ni mu seere mais ñun fi ne suñu soble mënuñu ko jaay parce que bi ñuy ñoroon ay kilo cent franc cent vingt cinq force nga jaay parce que day yàqu mu ngi yàqu boo xam loolu na am sàmbur fois boo nga xamante bu ñoree da nga koy mën a denc foofu yenn saa yi mu jar prix yenn saa yi moom mooy loolu day mujj sax dañ koy dindi sax di ko sànni nii du jar dara dara dara du ko jar te bu boobaa xam nga nga def ci sa fere day metti ci yow. ay baana baana ñëw di ko jënd si maanaam dañ koy kii bu commande nii buñ demee ba soxla ko rek dañuy ñëw buñ ñëwee léegi commande ko léegi nga dindi yóbbu leen ci marché bi ñoom ñoo xam lu ma yuñ koy jaayee ji ñoom waaw ñun moom ci marché bii rek lañ koy jaay. yow fi mu toll loo daa jëndee 5000 yaa ngi koy jëndee 7500 wala 10000. moo tax yëf yi xaw naa doy waar lool lool sax dinañ bay tamaate dinañ bay carotte dinañ bay suppame dinañ bay joxute basante oignon ak nawe lépp luy maraîchage daal ñun fii Diogo dañ koy béy pomme de terre soble tout lépp luy maraîchage dañ koy béy noor bi moom lépp la ñuy béy pomme de soble fii ngay gis ni kaani salaata fi ne woon kaani pabron bi moo ne woon fii ngay gis noo ko dindee laa fi def tomate fële ci kaw ma def ko suppame gis nga oignon bu ndaw boobu ma jëmbat ci kaw noonu lañ koy béyee fii noor bi moom lépp la ñuy béy nawet bi fi mu ni gis nga ko tomate bi la ñuy ak oignon tuuti rek carotte yi presque ñor na gis nga carotte bi ngay gis daanaka ñor na dañ koy di da carotte bi ñor na daanaka fi mu toll daal nawet bi moom oignon nga mën a bay ak tamaate yooyu nga mën a bay partout tuuti rek ba nawet bi xaw a wàcc tuuti ndax ndox mi da ciy xaw a suyee ndoxu nawet bi. ñàkkum ndox yi tamit doon lu leen sonal ci tool yi. te dara warulu ko lu dul usine GCO mi di exploité zircon ci gox gi. usine bii di MDL ma ngi fi mais dañoo dafa nangu suñu natu ndox. fi mu toll ñaari laas laa waroon na yor comme nii mu mu am pression comme nii mais fi mu toll benn laay def imaginer benn nga nga yor benn laas war a roose lii lépp da ngay jóg quatre heures du matin da ngay roose ba ay midi une heure xoolal boobu temps lépp nga taxaw ko ci benn laas te bu dalay wér bu dee ñaar la du ko mat bu dee ñaar la nga am pression du ko mat ne ndox mi bu demee usine bii ñoo ñu ko yóbbu MDL defaluñ ñu dara kon taxaw nag moom bu leen neexee taxaw ñu defar nañ dëkk bi mais dëkk bi moom mu ngi nii defuñ fi dara du ndox filtré wuñ ñu ndox mi ñuy naan sax filtré wuñ ko man ci ndox mii laay naan fii laay roote man maa dëkk ba maa ko dàqu ndox boo jëloonu bitéel nga sol ko ci xëy fanaan boo xëyee day xong cooy te bu li ma la wax ne nag bu la neexee ndoxum dëkk baa ngoogu demal nga tàng ci nga tàng ci nga soot nga tàng ci sama ndox man nga koo téye fii nga def ko ci biteel semaine du soppi ko man nga ko ci def semaine laa ne ndox mi du soppi ko mais dëkk bi moom MDL defaluñu tus dara defaluñu yàqal ñu daal la def mais defaluñu tus suñu àll bi gis nga ko ndox fi ne noonu lañu jafe mënu ñoo am ndox ah te ndox mi mooy roose fine nii dëkk bi parfois ñun bu ñu baaree bu ñu bañoon dëkk bi dañuy am jaaxle dañuy toog pendant quinze jours wala vingt jours wala un boo nga xam ne ndox du fi am ci forage mu ngi fi day pan du ñu am lu ñu ko defaree dem na ba fi ne kër goo dugg dañoo dem mobiliser bëtt forage si biir kër gi bu courant coupé nga pare tool yi man sama tool li ma fay joxe ci ndox du jeex. bi damay daan tëdd ba guddi sax ñu woo ma dawal sama moto ñëw fii taalal leen ñu duy fi ne am na ñuy dem kàbbu daanaka chaque jour ci lu ñetti at fii lañuy ñuy duyee loolu lépp nag wax dëgg yàlla lu toll ni fii ñun bu fekkente ni mënuñu noo joxoo courant bu day war na noo mën a am matériel bu ñu dimbalee boo nga xam ne yooyu yëpp daan ci mën a gis suñu bopp. marché ju baax bokk na ci lu askanu jogo di joytu. baykat yi fii ci suufu garab ji lañuy ñuy seeni jiw te sax la jëm yu bari dañ fay faral di yàqu. ay at ay at ñu dinañu defar marché dinañu defar marché CCO ñëw na wax CCO ñëw na wax dem defaluñu dara ànd ak meer ñu wooma ma dem defaluñu dara bu guddee portable ngay yor nit ko te fii ay millions yi ay millions millions yi millions yi nit fii daje ngoon. ngoon gu ne alarba sag alarba sag dimanche sag marché bu ne noonu lañ fiy dajee sunu première jafe-jafe mu noonu ñaareel ba mooy li ñuy bay sunu ko bayee ba pare suñu ko bayee ba pare mën naa leen dañ koy bay ba pare tuur ko c'est que amuñu moyen pour war ko mën a jaay amuñu fenn fu ñu ko mën a denc ba jaay ko dañuy indi beneen produit bu jógee bitim réew kon keraa sunu bas ñu bàyyi sunu bas dañ koy tuur ci ginnaaw weer ci ginnaaw mars bi ñu mars ñoo ngi jaay saako su ko sa carotte 2000 francs nga jënd 200 litres gasoil 110 mille jënd saako engrais 35 mille kooku jafe-jafe la ci baykat bi jël say say employé di leen fay da ngay dem ba employé yi nga jël di leen fay doo man doo leen mën a fay da ngay coow ak ñoom ngay dem di yéeg a wàcc c'est que li nga li nga programmé ci tool bi tool bi mënu koo génne c'est que bi nga ko ñoralee mënoo koo jaay fenn kon kooku suñ première jafe-jafe ci la bopp aussi bu ñu ko bayee ba oto bu ko mën a transporter yóbbu ko yoon wi baaxul su ñu ngi jàmbat yoon wi yoon wi yoon wi marché moo jël moo éliminé marché Diogo c'est que ka fa ne defar na ko ba mu normal ku yël sa bagage da nga yóbbu Notto dem jaay tëj boo boo bëggee dem tëj sa bagage dem sa yoon ba saa bu la neexee nga ñëw jaay ko fi ne soble bii nga seen sama place bii mën nañ koo jënd teg ko jaay ko mais amuñu fu nu ko mën a teg ba jaay ko c'est que bu nu amoon sax doon te mbaar moo xam ne mbaar mu féex la boo xam ne mën nañ faa teg soble bii mën noo jënd lu bari engagé ko teg ko fii jaay ko boo gisee soble bi seere nii mu seere fi ni nii mooy mënuñu koo téye bu nu ko mënoon a téye léegi soble du passé deux cent cinquante trois cent mais fi ni say vingt cinq kilos bi ñoo ngi koy jaay cinq mille loolu jafe-jafe te noonu noo ngi koy béy fii tool yi man koo am bu baax nag mais bu nu ko béyee mënuñu koo jaay. ñaari weer ci ginnaaw rek ba ci weer pompe mi ngi jar fanweer ak ñeent tey mi ngi jar téeméer soble mi ngi jar 650 li ko waral mooy day ndeen bu nu ko tegee fii ci marché bi su amee fukki fan juróom day yàqu day nëpp waaw day nëpp bu nëbee dañuy fayaat ñii ne ci marché bi ñëw di fi liggéey ñu baas tànn ko di ko tànn di ko tànn maanaam bu fekkee da ngaa denc juróom fukki saaku ci gàttal boo ko tànnee fukki saako yi moom day dem da nga doon wut bénéfice nga tànn fukki saako dem sotti ko jot fee ndax loolu liggéey la ah. bu dee sobli aussi boo ko dencee lu mat fukki fan ak juróom fii la ñaar fukki fan day yàqu nga sotti ko tànn ko ñaar fukki saako dina ci tànn yàqu nga desee ñaar fukk loolu métti ah démb rek maa nga am sama benn xarit nee na 200 saaki pompe la defoon ci compte machine deux cent sac bi ko sottee ba tànn ko juróom-ñaar fukk la am soixante-dix saaka ci des téeméer ak fanweer yàqu te xoolal xool lim fere ba mu lim ci fere yor tool di def engrais jënd jiwu pomme de terre saako vingt bi nga koy jaay la ko quinze mille nga jënd gasoil bi di ko roose ba mu ñor nga am trois cent sac cent sac yi ba ko wëbbee jawbe moom aussi nee na daanaka dafa yàqu fayuñu ko deux cent saak yi téeméer saako yeeg fanweer daa yàqu juróom-ñaar fukki saako kon noonu lenu dal lu méttee méttee méttee méttee méttee waaw juróom-ñaar fukki saako nga jaay ko sept mille cinq cent di employé ay surga ak la nga leban ci ngaj ak la nga leban ci sa foo koy fayee su ko defee ñu daal di kalaami yóbbu brigade ñu yóbbu da ngaa lekk yëfi jàmbur fekk lekkoo yëfi jàmbur da nga amul foo denc rek amoo foo ko teg loolu mooy li ñu gën a rey lu bëgg loolu ñu dimbali ci lu man marché bii ñu dimbali nu liggéeyal na marché boo xëy day tëjee ko tijjiku nii ko ngañ wax ndax lii nga jënd walur 2 millions 3 millions teg ko fii kenn waru ko léeg-léeg nu ñëw sa benn saaku réer léeg nga ñëw sa ñaar saaku réer léeg-léeg xaar yi dugg ci bu guddee lekk loo ci man xam loolu métti na te jogo amul marché fu nu taxaw rek lañu am te bés bu ne ñu ngi fiy këll këll naa da ngeen fiy jug loolu bu ñu jógee fu nu jëm. gannaaw jafe-jafey ndox jiw ak engrais yoon ju baax jogo mu ngi koy sàkku ci nguur gi.